alhamdulilah rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam alaa nabiyyinaa muhammadin sayyidil mursaliin wa alaa aalihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'd mbokki jullit yi ñu xam ne ngëm yàlla muy pas-pas bu wér bu dara jaxasoowut moo di ngëm goo xam ne day nekk ci biiru xol. di jaar ci aw làmmiñ di ca feeñ ci waxi boroom di jaar ci ay cir di feeñ ci ay jëfam ngëm googu nag benn kattan la benn doole la force la boo xam ne day puus nit ci ngir muy def ya gën a kawe ya gën a baax di ko tere muy def ya gën a yées di ko ñaax muy jëm ci lépp loo xam ne lu tedd lu rafet la di ko tere lépp loo xam ne lu bon la loolu lëngëm kii def ci nit loolu moo tax buñ xoolee alquran ak sunna dañuy gis ne saa buy digle lu baax day jiital digle ngëm wala mu fàttali ka muy digal yow ku gëm nga kon nii nga war a mel boo xamee ne mi ngi tere lu bon itam day jiital digle ngëm ba noppi wala mu fàttali kam koy tere ne ko yow mii kat ku gëm nga kon loolu da ko war a sori ànd googu yi nga xam ne gëm yàlla ak def lu baax ak bàyyi lu bon ànd doona ko nga xam ne ñoom ñoo ànd loolu moo lay woon dëgg dëgg dëgg buumi jokkoo muy relation bi nga xam ne moo dox diggante ngëm yàlla ak jikko bu fekkee ne nag dañuy jàngat gëm yàlla ak jikko dañuy gis ne mi ngi feeñ ci ñaari anam am na ñaari tomb yoo xam ne benn bu ci nekk buñ xoolee dañuy gis ne ngëm yàlla ak jikko foofa dañ faa takkaloo lool ba ci jëkk moo di jikko yu rafet yu baax ak njub ak def lu rafet loolu meññet la moo xam ne gëm yàlla moo koy meññ maanaam ci gëm yàlla lay jóge kon mënta am te fekk ngëm nekku saa boo xam ne ngëm yàlla ga wér na sa yóbboo nga seentu jikko ju rafet saa boo xamee ne ngëm yàlla ga wérut nag sooy boo ngay deltu safaan ba moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne akmalul muminina imaanan ki gën a mat ci way gëm yi ngëm way gëm yi ka ca gën a mat le ngëm nee na ko ahsanuhum xuluqan mooy ka ca gën a rafet jikko bul jàpp ne kon da ngay wax ne fépp fu jikko ji rafet jikko ji moo jiitu waaye ngëm gi moo jiitu ngëm ji mooy jiitu sax ba màgg meññ nag jikko yu rafet yi kon yow mi jóg di wuti jikko ju rafet demal defari ngëm nga lu bari nag ci alxuraan sunna loolu moo tax dañuy gis muy firndeel loolu di wane ne ngëm ji mooy sax ba meññ door a jur jikko yu rafet ya bokk na ca ci sunu borom tabaraka wa di wax ne wane ne ngëm ci boppam dafay jur ak maandute dafay jur maandu maandu mooy kenn ku ne wala lenn lu ne nga jox ko xam-xam borom bi ne yéen ñi gëm yàlla na ngeen doon ñoo xam ne ñu jub ngeen te yàlla tax leen ngeen di def te maandu te bu leen tooñ kenn nag ci kaw ne ak noonoo dafa dox seen diggante ak ñoom waaye rek na ngeen maandu ndax maandu moo gën a jege ragal yàlla kon yéen ñi gëm lay waxal kon ci ngëm gi la sukkandiku ngir digal leen ngeen maandu digal leen ngeen bañ a tooñ ñaareel ba ngëm yàlla akuk dëggu akuk dëggu dañoo taqaloo moo tax sunu borom tabaraka wa taala ne yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te fu ngeen toll ngeen ànd ak ñi dëggu maanaam teg ko ci kaw seen ngëm googu ba tey it ngëm yàlla ci boppam dafay joxe kersa kersa bu ñu ko waxee mooy loo xam ne daf lay tee def lu yàlla tere day dox sa diggante ak la yàlla tere moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ngëm buñ ko séddalee mat na juróom-ñaar fukki xaaj waaye kersa benn xaaj la ci xaaj yooyee kon kersa bu am solo la moo tax ci beneen xadis day wax ne boo amul kersa sooy ba nga def lu la sow maanaam loola la muy firi mooy ku amul kersa lu ko neex def ñeenteel ba moo di ngëm moom yi bokk na ci jikko yu rafet yi mu jural nit ki mooy ku gëm yàlla ku tabe lay doon ci la ko yàlla jox ku mën a jote lay doon itam moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku gëm yàlla day teral ganam teral gan ci xeeti tiraanga la bokk waaye ci xeeti tabe lay bokk ngëm itam day tax nit ki lu muy bëgg yàllaay tax mu bëgg ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu am solo mu ne du ngeen mën a dugg àjjana li fee gëmu leen ngëm googu nag du ngeen ko mën a def li fee bëggantewu leen mu ne xanaa du ngeen ñëw ma tegtal leen loo xam ne su ngeen ko defee bëggante loolu mooy dee leen nuyoo te di ko siiwal ci seen diggante kon kat loolu jër ta xeeb ndax day njëmbat day jëmbat ngëm gi dajeeg sa moromu jullit ne ko asalaamaaleykum ne la waaleykum salaam wa rahmatullah te siiwal ko foo mën a toll ku nekk di ko wax ñu di la ko delloo juróom-benneel bi moo di ngëm yàlla ci boppam dafay tax jullit bi nangoo muñ nangoo sant itam nangoo muñ nangoo sant muñ ab dogal sant xéewal moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de yéem naa mbirum ki gëm yàlla ndax mbiram lépp yiw la te loolu nag ku gëm yàlla dong moo ko am nee na su fekkee ne metit tegu xéewal tegu na ci kawam maanaam xéewal ñëw na ci loxoom mu daal di sant yàlla nee na loola doon aw yiw ci moom su nattu tegoo ci kawam it nee na mu daal koy muñ loola soppi ko aw yiw ci moom loolu ku gëm yàlla rek mooy mel noonu waaye ku gëmul yàlla bu nattu tegoo ci kawam mu daal di saalif waaye bu xéewal tegoo ci loxoom it mu daal di bew kon ki sant yàlla ci xéewalam kooku béwul ki sant yàlla ci xéewalam kooku béwul ndax bokk na ci xeeti sant yàlla gi nga nangu ne lii du sa njàmbaar waaye yàllaa la ko jox te it moom doo nga nag moo la ko jox kon xéewal gi yàlla di ci sant keneen ku dul yàlla waaye yàlla lañ ki sant soo ko ci sante mucc ci bew nattu it ci sunu borom tabaraka wa taala lay jóge kon bu tegoo ci sa kaw nga muñ ko loolu daal di soppi ko doon aw yiw ci yow kon daal boobu tomb loo xam ne xeetu jikko wu rafet la woo gis ci jullit bi xamal ne ngëm yàlla ga nekk ci xol ba moo ko meññ saa boo gisee ci moom jikko yu ñaaw xamal ne ngëm gi ci boppam ba ne ci xol ba dafa feebar loola moo feeñ ci bitti ñaareelu tomb ba moo di bépp jikko boo xam ne bu ñaaw la dafa dàqoonte ak ngëm yàlla borom bi tabaraka wa taala détaayal nañ ko ci ay aay yu bare bare bari dañ ciy jukki rek lu gàtt loo xam ne dana tegtale la ca des yu bari ci jikko yu ñaaw yi jullit yi dund day indi ay noonoo seen diggante bokk na ci li ñu tuddee saboteente maanaam reetaan nit ki wala xeeb ko wala tuutal ko wala wax ci moom wax yoo xam ne yu jaaduwut la yooyu dañoo dàqonte ak ngëm yàlla moo tax borom bi tabaraka wa taala nee na yéen ñi gëm bu mu am mukk ci yéen ñoo xam ne dañuy sabote ña ca des maanaam di leen reetaan ndax kat amaana yaa ngi reetaan nit fekk moom moo la gën fa yàlla mu góor ñeeg jigéen ñi ñoo ci yam am na góor guy reetaan moroomam góoram fekk kookaa ko gën fa yàlla am na jigéen guy reetaan moroomam jigéenam fekk kookaa ko gën fa yàlla mu ne te bu leen di joxar bente ak joxe ñante ak a defante tuddante ay tur yoo xam ne neexu leen loolu lépp ci ñàkk njub ci la bokk te ñàkk gëm yàlla gëm yàlla ko mat moo koy andi nit ñaaw njort ak di reyu nit ki di gëstu ay mbiram di ko xool ndax bëgg caa gis lu ñaaw ba man koo feeñal te boo gisee lu rafet ne cell loolu nee na bokkul ak ngëm yàlla moo tax boroom bi tabaraka wa taala ne na ngeen wattandiku lu bari ci njort yi ndax kat li ëpp ci njort yi wala lu leen li ci njort yi bàkkaar la te nee na bu leen reju mooy gëstu mbóotum jàmbur te bu leen jëwante ndax nee na jëwante kat ku bëgguta fekk sa moroomum jullit mu faatu nga jël yàpp wa di ko lekk nee na kon bu mu la woon gannaaw ngay lekk ab deram maanaam ngay wax ca moom kon lu mat a wattandiku la misaal bu ñaaw la moo xam ne ku ko gis bu nekk war nga ko daw moo tax mu ne fa gari du moomu ngëm yàlla ci boppam dafay sàkkoonte ak lépp loo xam ne dafa jëm ci lu yàq personnalité nit yooyu bokk na ci wax lu dul dëgg bokk na ci joxe rendez-vous te waxoo defoo ko ni nga ko waxe woon bokk na ci nit ki wóolu la nga war ko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yett yooyu mu ne mandarga la muy wane ni nit ki am na jikkoy naafiq moo tax mu ne ayatul munaafiqi salaasun mandargay naafiq nee na ñett la benn nee na saa bu waxtaanee wax lu amut ñaar nee na saa bu joxee ab dël muy ab rendez da koy faussé ñett nee na saa boo ko wóoloo ci dara mu war la ca loola moo xam ci alal la moo xam ci sa njaboot la moo xam ci lu mën a doon waaye boo ko wóoloo ci dara mu war la ci yett yooyu maradaytaal yi bokkut ci yi nga xam ne dafay ànd ak ngëm yàlla dem moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne gëm na yàlla nee na bu mu lor dëkkandoo lor dëkkandoo mën naa amee ci yu bëree bari yoo xam ne doo ko yëg da nga sax day am yoo xam ne da nga koy xeet defe ne lu tuuti la lor dëkkandoo bari na ay façon tuur mbalit ci buntu kër jàmm wala nga sotti am ndox bu génnee jaar ci biir ndox moom loolu lépp ci lor dëkkandoo ci la bokk dëkkandoo nga dëkk ci kaw mu dëkk ci suuf ay yëngatoom di la tee nelaw loolu ci lii lor dëkkandoo ci la bokk bépp wax wala bépp jëf boo xam ne boo ko defee mën naa lor kooka na nga ko wattandikoo def ndax loolu dafay dàqonte ak sa ngëm yàlla moo tax mu ne ñetti yoon mu taxaw benn bis ne waat naa ci yàlla ne gëmu waat naa ci yàlla waat naa ci yàlla ne gëmut saxaaba yi tiit ne ko waaw kooka ku mu yow yonentu yàlla bi mu ne koo xam ne say dëkkandoo mucc ñu ci say lor maanaam amuñu dalu xel ci say lor yu bari yu jóge ci yow di dem ci ñoom kooka nee na gëmut yàlla kon loolu bokk na ci nit ñi war a wattandiku ndax lu tasaaroona la ci suñ société bii kon daal mbokki jullit yi da ngay xam ne saa boo gisee diine di nu nu summiku ci bépp jikko bu ñaaw te sol bépp jikko boo xam ne bu rafet la loola lam ci jublu mooy ngir nu sell suñuy bakkan sell suñuy xol sell nu mën a am ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala mën a tabbi ajjana mën a mucc ci sawara loolu rek muy jubluwaay moo tax suñu borom tabaraka wa ci suuratu shams dafa giñ waat fukki waat ak benn yoo xam ne sunu borom tabaraka wa taala da koo waat ci ay yëf yoo xam ne moom moo ko bind mu jant beeg weer beeg guddi gi bëccëg beeg di lim di ci waat di lim di ci waat ba fukk ak benn yooyu mat mu wax li muy waat lan la mu ne qad aflaha man zakkaha ku sellal bakkan bi nee na texe nga maanaam sellal bakkan bi yar ko laabal ko ba mu mucc ci ay bon bon ak ay jëf yu bon waaye nee na torox na perte na itam ki nga xam ne bàyyi na kanam boobu mu topp bànneexam di def lu ko neex kon loolu doonut loo xam ne lu woyof la loolu moo tax kon jikko yu baax yi jikko yu rafet yi takkoo ak mbaax ci sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa boroom ay ndigalam ak i tereem sa digganteem ak doomu aadama yi leen jëflanteel doon ku baax ci seen biir bañ leen a lor ci seen alal bañ leen a lor ci seen i der bañ leen a lor ci seen i njaboot yooyu xeeti jikko dafa doon ponk ci biir diine ji boo xam ne bu mënta ñàkk la kon bi yonente bi alayhi di wax ne kersa ci boppam dafa nekk benn xaaj ci xaaj yi ngëm yàlla xamal ne kon ñàkk kersa muy safaan bi benn xaaj la kon ci xaaj yi kéefër kon jullit bi daf ko war a daw ndax kat lépp loo xam ne day yóbbe nit ki ñàkk ko ñàkk dara ci diineem ak lu loola tuuti tuuti loola julli bi daf ko war a daw su fekkee ne nag ñàkk kersa ci boppam mooy mel noonu yeneen yi ci des nga xam ne dañoo fës lool muy wor ak wuruj sàcc alali jàmbur jëw ko yàqal ko xeet yu mel noonu day doon yoo xam ne moom day màbb diine kenn ku nekk ci yéen ci jamono yi nu weesu sunu askan wi yéen a ngi déglu musiba yu mag yoo xam ne mu ngi am ci réew mi yoo xam ne yépp boo ko seetloo ñàkk jikko yu baax rek moo ko indi ay nit yoo xam ne dem nañ ba siiw ba nit ñi am fu ñu leen teg teg leen ay personnalité ci ñuy liggéeye la ñuy liggéeye topp bànneexu bakkan tax ñu xëy benn bis musiba yu mag a mag daal ci seen kaw ñii di njaaloo ñii di dugg ci li ñuy wax liwaat muy ak ngóor jigéen ñii dugg ci drogue dugg ci ay yàq yu kenn xamut lu mu doon loolu xam ngeen ne ñàkk ji ko rek moo ko mën a indi nga toogaat déglu yeneen i doomu aadama yoo xam ne yu suufe yu ñàkk ay jikko lañ yu ñàkk diine ñu jiital seen intérêt personnel muy seen bëgg-bëggu bopp ñu jiital ko ci loo xam ne société bi moo ko moom di yàq di sàcc ba àgg ci sax ay yoo xam ne ay kubéer yi égo yoo xam ne li société bi jariñoo moo ci nekk ñi koy jël di ko def ci loo xam ne seen njëriñu bopp la dem ba weesu loolu sax ay yëf yoo xam ne ci ay xabru lañ koy sam yoo xam ne xabru yi nasaraan la ñuy dem di ko jël di ko dem di ko jaay ngir jëriñoo ko xam ngeen ne xeet yu mel noonu ak suufe la lool ak ñàkk jikko la lool ci askan woo xam ne dañoo wax ne lu ëpp quatre-vingt-quinze pour cent ci ñoom ay jullit la yeneeni mbooloo du doon kéemaan ci société bu mel noonu mu mën a juddoo ci lu mel noonu nga xam ne du faale luwaa du faale lu jub ndax ku faalewut sa diine doo faale ab waa loolu moo tax ñu mën a dem ba xëy benn bés rek ñu màbb ci dëkk bi lépp luñ dajeel luñ moom ak luñ moomul ak ku leen tooñ ak ku leen tooñut luñ gis yàq société bu mel noonu foofu rek la mën a am kon daal euh, responsabilité bu rëy la ci borom xam-xam yi ak wootekat yi ak imaam yi ak jàngalekat yi am nañ responsabilité bu rëy rëy rëy ci liggéeyaat ba jikko yu yàqu yi nekk ci sunu askan wi ñu jéem ko réparé waat jéem ko defaraat bañ tegu ci yoonu siraatul mustaqim loolu nag mënta mënul nekk lu dul su fekkee ne jullit yi dañu leen a delloo ci seen borom dundal ci seen xol yi pas pas bu wér boo xam ne ñu xam ne suñu borom tabaraka wa taala kenn ku nekk moo téye sa ruu gi moo tëye sa xol bi lépp loo xam ne def nga koy mi ngi koy xam te boo rëccoon àdduna ak li ci biiram it da nga moom ci benn bis boo xam ne ci bàmmeel mu indil la lépp loo mos a def mu teew ñu fay la ko ci nanga ko gën a yeyoo ngëm kooku li koy dundul ci xol yi ak bépp façon fajiin buñ ko mën a faje du sotti kon jàpp nañ ne ñii ma tudd muy imaam yi ak jàngalekati diine yi ak ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi ak wootekat yi ñoo ñu ñoo mën a faj société bi nañ leen jox seen responsabilité nañ jëmmaliku ci ñoom ñu delluwaat ci askan wi ñu jàngal leen diine ñu xam ko xam fas-fas ndax ñu mën a tamit siraatul mustaqim leneen luñ leen mën a def ak lu mu mën a doon itam luy yokk joote rek lay doon daw ak daay tàbb ci jëmb lay doon waaye doonul saafara moo tax paj googu ci la ñuy mën a demee ba xam ne tooñ ci boppam dafa doon musiba te fii mu nekk yii ma tudd yépp ci ay jikko yu bon buñ ko dee wax nit ki ñeme ko di ko def te faalewu ko mooy dem na ba li ñuy tuddee tooñ amatul benn sens ci ci moom mooy lu ko neex def borom bi tabaraka wa taala wax na ne borom bi nee na laa yanaalu ahdi zalimin nee na képp koo xam ne tooñ nga amatoo kóllëre gu dox sa digganteeg sa borom te bul fàtte ne ba ngay déclaré ne ab jullit o ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da ngaa signé woon kóllëre muy contrat bu dox sa diggante ak sa borom boo xam ne da ngaa fas yéene jaar siraatul mustaqim sa borom nee na jamono yoo xamee ne tooñ nga ci benn xeet ci xeeti tooñ yi muy tooñ sa bopp ci dugg ci ay bàkkaar yu dul jeex tooñ sa borom ci fekk lum la di ko def tooñ sa moroom ci jalgati ay alalam ak yàq ko wala ay bakkanam nee na xeetu tooñ woowu ku ko def ku nekk sa sama contrat bi doxoon sama diggante moom tas na laa yanaalu ahdi zalimin borom bi tabaraka wa taala waxaat ne wallahu la yuhibu zalimin nee na moom yàlla bëggul ki nga xam ne day tooñ kon kii tooñ noonu yàlla la ci kaw suuf yonent yàlla musal borom bi tabaraka wa taala waxaat ne an laanatullahi ala zalimin yàlla rëbb na képp koo xam ne day tooñ kon tooñ ci boppam dafa war a doon loo xam ne jullit bi doomu aadama yi sax da ko war a daw rawatina jullit bi nga xam ne dafa gëm yàlla yooyu yépp nag ñàkk nga gëm yàlla wala gëm yàlla ko weex ci ab xol moo ko mën a indi ci ab jullit te la ko ci mën a delloo siwaat mooy wootekat yeeg imaam yeeg jàngalekat yi ngi del siwaat jàkkaarloo waat ak nit ñi mën a wax ak ñoom ba delloo leen ci siraatul mustaqim allahuma ahdina li ahsani al axlaaq laa yahdi li axsaniha illa ant wasrif anna sayi'aha laa yasrifu an sayi'iha illa ant allahuma innaka tara makaanana wa tasmacu kalaamana wa taalamu sirana wa alaaniyatana wala yaxfa alayka shay'un min amrina naxnu albu'asaa'u alfuqaraa'u almustaghiisuuna almustajiiruun alwajiluuna almushfiquuna almuqirruuna almuctarifuun nasaluka masalat almasakin wa nabtahilu ilayka ibtihala almuznibin wa nadcuuka ducaa alxaaifin ducaa man xashicat lahum laka riqaabuhum ducaa man xashicat laka riqaabuhum wa dallat laka ajsaaduhum wa faadat laka cuyunuhum wa raximat laka unuufuhum allahuma aslix fasaada quluubina allahuma aslix fasaada quluubina warxam dacfana wa axsin axlaaqana allahuma inna li anfusina zalimun wa min kasrati zunubina xaaifun wala yaxfiru dunuba illa anta ya arhamu rahimin faxfir lana dunubana innaka anta algafuru rahim allahuma ajmac kalimata almuslimina ala altawxid ya arhamu rahimin mbokki jullit yi xam ngeen ne am na suñu mbokk mu nekkoon fii doon liggéey ñun ñi di ko wax Souleymane yàlla dogal mu génn àdduna ci bésu tabaski bi euh, ku yàgg ak noonu la ndax am naa nga juróom-ñetti at euh, ci ñeenti fan ci weeru janvier 2004 la yàlla dogal ñu andil na ko muy liggéey ak noonu ba ci le 26 ci weer wi ñu nekk kon loolu juróom-ñetti at yu mat la euh, ñu xam ci moom it ak baaxu kese ak bëgg diine ak bëgg lu baax dëkk Casamance lu bari ci ay bokkam it nag wax dëgg yàlla nekkuñu woon ci diine ji kero biñ ñu yëgalee ci bisub tabaski bi ne génn na àdduna li muy xat-xat ànd na maag suñ mbokk mi Omar Sall ba dem këram muy kër gi mu dëkkoon fekk fa soxnaam ñu wax nu ne bis boobu nekk bisu ajjuma ñoom dañuy yeex a génne seeni néew kon altine lañ ko war a génne ca morgue ba mu nekk nu ne leen kon suñ ko dee génne ngeen yëgal nu ko nu dikk foofa defar ko jullee ko ngeen door koo yóbbu ñu ne waaw loolu dana mën a nekk ndeketi ci suba sa ci samedi ja rek lañu ko xëy yóbbu te yëgaluñ ko kon suñ mbokkum jullit faatu na moo xam ne li daloon Najaasi dañuy jàpp ci suñu xel ne dal na ndax Najaasi buur la bu nekkoon Éthiopie tuuboon dugg ci lislaam te déclaré wut lislaamam ndax ay xat-xat ba mu génnee àdduna nasaraan yi jël ko def ca moom la dëppoog seen diine Jibril ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko ci Madina yëgal ko ne ko seen mbokkum jullit faatu na te kenn julleewu ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa sab saxaaba ay sàppe daal di koy jullee kon danoo bëgg su fekkee julli nan ajuma ba noppi incha allah su mbokkum jullit moom yi nu jullee ko julleeg néew incha allah wa aqim